الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جناب سنتابرا سبحانه وتعالى julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi dénk suñu bopp di leen dénk ragal borom bi subhaanahu wa taala ak bàyyi xel doxalin yonent bi alayhi salaatu wassalaam si suñuy wax si suñuy pas-pas ak si suñu mboole mi jëf mbokk yi ñu xam alquranul karim dafa am lëkkaloo bu rëy bu dëgër relation bu rëy bu màgg ak wéru koor loolu nag dina feeñ ci tomb yi di ñëw bi ci jiitu mooy alquran borom subhanahu wa taala mu ngi ko wàccee ci weeru koor rawatina ci guddig laylatul qadr yàlla subhanahu wa taala ne shahru ramadan alladi unzila fihi alquran xam leen ne alquran ñu ngi ko wàccee ci weeru koor mu nekk nag njub ñeel doomu aadama yi ngir génne leen ci lëndëm yóbbu leen ci leer yàlla subhanahu wa taala waxaat na inna anzalnahu fi laylatin mubaraka alquran ñun ñoo ko wàccee ci guddi bu barkeel bu bari ay barke mu waxaat na inna anzalnahu fi laylatil qadr ñun ñoo ko wàccee alquran ci guddig laylatul qadr wàccee boobu ñu woo wàcce alquran ci guddig laylatul qadr mooy bi muy jógee ci borom bi subhanahu wa taala mu sant jibril mu jele ko fim koy jele ba andi ko fim koy yobul yonante bi alayhi salatu wasalaam loolu benn guddi la waaye wàcc bi mu wàcc ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam muy wàcc ci ay laaj ci ay circonstance ci ay jamono yo xamne dañ ci yonal ay atte jibril diko wacc ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam ba mu mat ñaar fukki at ak ñet واثر ابن الأصعى رضي الله عنه mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na borom subhaanahu wa taala mu ngi wàccee li mu joxoon ibrahim alayhi salaatu muy suxuf ibrahim nee na mu ngi ko wàccee ci guddi gu njëkk ci weeru koor tawraat bu yont yàlla muusa ñu ngi ko wàccee ginnaaw bi nga xamante ne weeru koor am na juróom benni fan linjiil ci yont yàlla isa alayhi salaatu wasalaam ñu ko wacce ginaaw bi nga xamantene ne koor gi amna fukki fan ak ñett alquran borom bi wacce ko ci yonnati bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci ramadan bim amé ñaar fukki fan ak ñent kon inna anzalnahu fi laylatil qadr lolé dina leral ne laylatul qadr kon ba légui luñu wara wër la ci fukki fan yi ndax fii muy wax ne ci laylatul qadr lañ ko wàccee waaye mu tudd ñaar fukki fan ak ñeent kon loolu war na wane na relation bi nga xamante ne alquran am na ko ci weer wii ñu nekk muy shahru ramadanul mubaarak ñaareel bi alquranul karim ak koor borom bi subhaanahu wa taala daf leen boole ñuy ràmm ki nga xamante ne mu ngi góorgóorlu ci ñaar yooyu kii góorgóorlu ci alquran di góorgóorlu ci wéru koor alquran ak koor dina ñëw ëllëg yowmal qiyam di la tinul ci borom bi subhanahu wa taala abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhuma mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nee na alsiyaamu walquranu yashfaani lil abdi yowma alqiyaama nee na koor ak alquran dañuy ñëw ëllëg yowma alqiyaam di tinul ki nga xamante ne moom mooy ki doon góorgóorlu ci koor ak ci alquran nee na koor gi bu ñëw dafay ne yow sama borom man maa ko tere woon muy lekk tere ko muy naan tere ko mboolee mu bànnee xam ci bëccëgu weeru koor yi kon nag maa ngi lay ñaan nga ràmmuloo ma ci moom nee na alquran moom dafay ñëw ne man maa ko tere woon muy nelaw guddi kon bëgg naa ràmm ki nga xamante ne moo doon góorgóorlu mu ne borom bi subhaanahu wa taala jox leen ndigal loolu ñetteel bi mooy wàcc bi jibril doon wàcc ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngir di nafar alquran ak di ko gaaral yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci guddig weeru koor abdullah ibn abbas radiallahu anhuma mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo gënoon tabe ci doomu aadama yi moo ci dàqoon joxe ci lépp nee na daana gën ndax jibril daf ko doon dikkal guddi gu nekk ci weeru koor ñuy nafar li nga xamantene mom moy alquran neena nak bu jibril tasse ak mom ci la yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon gëna tabe mo doon gëna gaaw sax ab ngelaw lo xamne borom subhanahu wa taala daf ka yónni ci génne pour jox ko ñi nga xamantene ñom ñoko ñoo abu hurayra radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na jibril daana ñëw ci weeru koor gaaral ma alquran ñu koy nafar benn yoon ci at bu nekk mu ne mu gaaral ko nag mu ñëw ñu mu daara sax ñu réviser alquran ci at bi nga xamante ne ci la génnee àdduna jibril dikkal na ko ñaari yoon ñu nafar alquran pour wane importance bi nga xamante ne am na ko ci ci weeru koor فاطمه دي دوم يونت بي صلى الله عليه واله وسلم من يونت بي عليه الصلاه والسلام نانا يونت جبريل دانكو دانا نيو اد بن يون واي رين نما ñaar يون لول بي صلى الله عليه وسلم مكو دون فاطمه كون لي نيو جيلي حديث بي موي سوب بيغا خامتاني سوب نانكو دي نفر باتي القران الكريم ديكو ستانتال دي maanaa yi ci nekk sens yi nga xamante ne moom moo ci nekk ak dajaloo it dajaloo di ko muraajaa di ko jàng lu bari dajaloo di ko muraajaa bokk na ci di ko tafsir nit ñi di xam li nga xamante ne moom la alquran di wax waaye ñu góorgóorlu it di ko jàng rawatina ci guddi gi waaye di ko wàccee ci li nga xamante ay yoon yu bari ci weeru koor gi ñeenteel bi mooy xër bi nga xamante ne yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xoroon na di julli di def qiyaamul layl mooy li ñu tuddee ak taraaweex ba pare di guddal rakkaa yi ci guddi weeru koor yi waaye it mu ñaax jullit ñi ñuy taxawee lu mel noonu xudayfa ibnul yamaan radiallahu anhu mu ne benn bés yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam jóg na pour julli ci guddig weeru koor mu ne fa salla arbaa rakaat yonent bi alayhi salaatu wasalaam julli ñeenti rakaa ñeenti rakaa yooyu lan la ciy jàng saar yu gudd yi leneen la ciy jàng suuratul baqara mu teg ci aali imran mu teg ci annisa mu teg ci almaida mu teg ci al anam ana si suñuy jàkk jamono yi moom mooy julli ci benn guddi jàng saar yi amut waye li limuy woné mo yonente bi alayhi salatu wassalam daf ni won solo bi nga xamante alquran amna ko solo ci wéru koor alquran amna solo ci jamono yépp waye wéru koor mom moy wéram julit bi war cee gor bu budé dafa sagane won alquran mu del ci tuub ci borom subhanahu wa taala jël engagement ci delu ci alquran ci jàng ak ci ko setantal anuma ibn bashir ci دك بيغا خامتاني موم موي خيمس دا فا تاخاوون سي بن منبر موني منبر بي يونت بي عليه الصلاه والسلام بن بس مسونا تاخاو دي جولي ني اندك موم ني اندك يونت بي عليه الصلاه والسلام من قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان إلى ثلث الليل عندنا دي جولي أنك يونت بي عليه الصلاة والسلام تي guddi ñaar fukkeel bi ak ñatt ci wéru koor ànd ak yonente bi alayhi salatu wassalam di julli ba benn ceer bi ci guddi gi jeex nee na beneen bés boo xam ne mu ngi tolloog ñaar fukkeelu guddi ak juróom ànd na ak yonente bi alayhi salatu wassalam ba guddi gi xaaj nee na beneen bés muy guddig ñaar fukk ak juróom ñaar ànd nañ di julli ànd ak yonente bi alayhi salatu wassalam حتى ظننا ان لا ندرك الفلاح با ني جابنا ني مي كات تاي جي موم نارو ньо خد تاي جي نارو ньо نارو ньо خد كون ньоم خد بوبو سنن لا تي ньоم بو دغور بو خامني ньоم دنج كا فونكون كون دم نا با جابني جولي يونت بي عليه الصلاه والسلام ني مو غودي تاي بو مو تول دي خد كون فوفو يونت بي عليه الصلاه والسلام تاي سنن عائشه رضي الله عنها دا فا دون نتلي يونت بي عليه الصلاه والسلام بو دون nafila di jàng alquran nim ko don jàngee aya par aya dawul sax lëkkale di bolé ay wute, wuté waye bu commencé bop aya fi aya bi jexé mu taxaw mu wat benen aya jexal ko taxaw tàmbaliwaat beneen ko lolu ngir tadabbur li nga xamantene mom mo ci nek setantal li nek ci aya yi te lolu yonente bi alayhi salatu wassalam nit la bo dañ ko wara dañ ko war a jëlee ci moom moo tax abu hurayra radiallahu anhu ci ñaax bi ñu yonente bi alayhi salatu salaam ñaax ci loolu mu ne yonente bi alayhi salatu salaam nee na man qaama lay man qaama ramadana imanan wa ihtisaaba képp koo xam ne taxaw na ramadan di julli ànd ak ngëm ànd ak yaakaar borom bi subhanahu wa taala gufira lahu ma taqaddama min danbi borom bi subhanahu wa taala jéggal la sa bàkkaar yi nga def te loolu nak ni muy amee mooy taxaw yo xamné ne yaa jàng alquran diko diko setantal ko dafa mu man qama ramadan kep ko xamné taxaw na ramadan jëmel bi mo yonente bi alayhi salatu wasalaam sax bi mu saxon di i'tikaf ci jàkka madina ak di dundal fukki guddi yi mujj ci wéru koor sunna aisha radiyallahu anha mo ne bi alayhi salatu wasalaam daana l'intikaaf fukki fan yi mujj ci wéru koor ba ba bim fi jëgé ba bi ko fi borom bi subhaanahu wa taala di jëlee thumma atakafa azwaajuhu baada bi mu fa jógee nag ay soxnaam it di li antikaaf ci ci biir jàkk ji te loolu dafay ànd ak jàng alquran di ko wàccee ay yoon yu bëree bëree bëri bëri bëri moo tax moom radiallahu anha mu waxaat ne yonente bi alayhi salatu wasalaam bu fekki fan yi duggee woon yonente bi alayhi salatu wasalaam ahya leyla dafay dundal guddi gi mu yee waa këram waye mu gëna taxaw lëmas li nga xamantene taxaw gëna a ci jaamu borom subhanahu wa taala mbokk yi ñu xamni alquran mom moy ruuhu koor mom moy jox cafka bi nga xamantene da fay nekk ci koor waye mom moy taral wëru koor moy ñam bi nga xamantene ki wor moko wara gënal ci yenen ñam yi nga xamantene mu ngi koy dugal ci biiram donte lolou kenn du ko wax kenn du wax nako ko bàyyi waaye bu ko defee it na jital li nga xamantene mom moy alquran ndax bëccëg bi comme lek amul nan amul nañu fexe di dundé li nga xamantene mom moy alquran diko jàng diko setantal settantal asalafu salih ñu jëlé ci ñom ay mbir yu yéme ci li nga xamantene mom moy alquran ibnu rajab rahimahullah tokal nako ci téréem bu mu muy tuddee taiful maarif نانا الإمام الزهري رحمة الله عليه بويركون دوغون نيلا يوخ إنما هو قراءة القرآن نانا ويركور دو لن ردل نغور غورلو تجانج القرآن وإطعام الطعام أكدل له جوخ ميغا خمتنا نيوم نيو يلو نيو جوخ لين ابن الحكم من مالك ابن أنس نانا بو ويركور تراون تراون بدوغو من يفر من قراءة الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام لمو ماجي أم صلو nee na al imaamu malik dafa doon bàyyi jàngale xadis yitte woo li nga xamante ne moom mooy alquran bàyyi sax toog ak boroom xam-xam yi dafa doon dem wéet di jàng alquran di ko settantal abdurazaq mu ne sufyaan thawri bu weeru koon duggoon dafay bàyyi mboole mu jaamu yàlla yi nga xamante ne naafila la wa aqbala ala qiraati alquran mu jublu nag di jàng li nga xamante ne moom mooy alquran sofiane mom moy wax mu ne ki ñu tuddee zabid al yammi nee na bu weeru koor da fay dajalé mbolé mu mushaf yim yore waye mu wo ñi nga xamante ñom ñuy ay ngom yépp dajalo ci mom ñuy al alquran al waso ñu al aswad moom dafa doon al alquran ci weeru koor ci ñaari gudd yu nekk daana al alquran xataada moom li mu aada woon moom it ci ramadan mooy wàcce kaamil bi ci ñetti guddi yu nekk bu fukki fan yi duggee nag guddi gu nekk mu wàccee ci li nga xamante ne moom mooy alquran alqaasim jële ci baayam di alxaafid ibnu asakir mu ne moom de dafa nekkoon koo xam ne dafa taxoo woon ci julli mbooloo waaye jàng alquran nee na ajjuma ju nekk dafa doon wàcce alquran waaye ci biir weeru koor guddi gu nekk ci doon wàcce alquran nit ki nag kon mën naa laaj waaw ñii lu tax ñuy def lu mel nii te yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ci hadith bu wér ne koo xam ne na wàccee na alquran ci lu néew ñetti fan kooku déggul alquran kooku deful tadabbur settantalul li nga xamante ne moom mooy alquran ibnu rajab nag moom mooy tontu loolu mune tere bobu lu tax yonente bi alayhi salatu wasalam tere ko ci jàng alquran ci lu new ci ñetti fan tere bobu moy nit ki sax ci lolu manam ñetti fan yu nek nga yi wacce alquran ñetti fan yu nek nekk ngay wàccee ngay wacce alquran amna kene ci sahaba yi ko xamne lolu la don def yonente bi alayhi salatu wasalam ne ko bàyyi li bul defate li mune ne attan naa ko mu ne ko attan ko neen bi demé ba yonente bi alayhi salatu wasalam jóge fi mom mu dem ba xawa magal dem na ba gis na ne mënatu ko waaye mënu koo bàyyi ngir engagement bu mu jël ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi alayhi yërmande bi mu am ci nit kon mu ne koo xam ne wàccee na alquran ci lu néew ñetti fan ko ko déggul alquran ibnu rajab na tere boobu nag lu tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam tere ko mooy di sax ci loolu nga saxal ko waaye bu fekkente ne nag ci waxtu yi nga xamante ne waxtu yu am ngéneel la lu mel ni weeru koor rawatina ci ci gudd yi rawatina ci guddi gi laylatul qadr wala ci place yi nga xamante borom subhanahu wa taala daf leen màggal lu mel ni màkka ci koo xam ne dugg na màkka te bokkul ci waa màkka nee na ñu mel noonu wala jamono yu mel wala place yu mel nañ di ci bëril jàng li nga xamante ne alquran ngir màng jamono jooju ak màng waxtu wi nga xamante ne waktu mooy waxtu bi am wax jojo nak al imam ahmad loolu wax al imam ishaq mom la wax ak yenen borom xam-xam yu bëree bëri kon bo nekké ci jamono jo xamné ne ni na ngëneel mën nga di wacce ci benn guddii boko ko ñaari guddii ñaari fan ñetti fan lolou yaronte bi alayhi salatu wassalam tere bi agul fofu ndax jamono jojo dafa am ngeenel wala place bobu nga nek dafa am ngeenel kon mbokk yi gor lu ci dundalat jang alquran dundalat setantal li nga xamantene mom mo nek ci alquran ci ay maana waaye sàkku ci li nga xamante ne moom mooy tiyaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa ne amul benn groupe ci ay doomu aadama yoo xam ne dañuy daje ci benn ci néegu borom subhanahu wa taala di jàng alquran di ko settantal di ko muraajaa lu dul borom subhanahu wa taala dafay wàcce seen kaw dal waaye yërmande borom subhanahu wa taala yiir leen borom bi subhaanahu wa taala yónni malaayka yi malaayka yi wër leen di leen ñaanal waaye borom bi subhaanahu wa taala di leen tudd ci pays yu gën a kawe yi ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy malaayka yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne nañuy góor-góorlu di am kóllëre ak li nga xamante ne moom mooy alquran mu ne mu ngi giiñ ci ki nga xamante ne bakkanam mu ngi ci loxoom nee dafay gaaw a rocceeku ci ñi koy sàggane nee na moom moo gën a gaaw jamono ji nga xamante ne jël nga sa xar takk ko ci buum def ko ci benn bant nu muy gaawee génn buum bi dem xar mi dem nee na alquran moo gën a gaaw ci loolu ci ki nga xamante ne dafay sàggane alquran kon ëpp naa di sàggane alquran rawatina yonente bi alayhi salatu wasalaam li mu wax man qara xarfan min kitaabillahi falahu bihi xasana walxasanatu bi ashri amthaliha كيف كو خامني جانغنا بن عرف تي تير بروم سبحانه وتعالى امنا تي ليغا خامتيني موم موي تيابا من والحسنة بعشر أمثالها تدين كي فل نك فك من لا أقول ألف حرف ألف لا ميم حرف وخو من ألف لا ميم موي عرف واي ألف تي بابام عرف لا كون أم تي فك تيابا لام عرف لا أم تي فك تيابا ميم عرف لا أم تي فك تيابا موي فان وير بون ألف am nga fan fanweeri tiyaba looy wax ci boo jàngee fatiha looy wax ci boo jàngee baqara looy wax ci boo wàccee kamil bi yal ni ko borom subhanahu wa taala yomul allahuma ya xayu ya xayu ya qayum اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا اللهم اجعل القرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما